leen li ñuy wax ci ngir yi wute yi wute yu ndaw la te it nag ñaar rakk yi nag moo gën a mat jàppal te ñaar njàppul rafet taxawal ñaari rakk yoo xam ne da nga yéene sante ko borom bi ci xéwal bu mu la defal wala musiba bu mu la joñal moo gën a mat ndax nag sujjóot boobu sart nañ ku ca laab wala jarul jàppal sax borom xam-xam yi wutee nañ ci lu bari bu fekkee benn sujjóot la rek boo yëg loo war a sante mën ngaa bañ a jàpp njàpp nag taxoog moom moo gën a mat waaye bu nekk ñaar rakk yi Malick wax la nag moom njàpp la la kon ñaar rakk yi daal am na solo atteeb nag sujjóot boobu mooy comme ni ñu waxee atteeb suy sujjóotal aaya boo yegg si wàcce sujjóot ci alxuraan nañ ko waxee woon laab gaag jublu xibla baag def sutura sa kanam ak te waxtu yi ñu war a sujjóot itam waxtu yi ñu warul sujjóot bul ca sujjóot atte ya benn la loolu moo doon bunt bi jëm ci sujjóot ngir sant borom bi subhanahu wa taala yajuuzu al amalu al xafiifu fi salaati li xaaja yajuuzu al amalu al xafiifu fi salaati lil xaaja dana dagan ci julli ñu def ci jëf ju ndaw joo xam ne du bokk sax ak jëfi julli ga waaye mu bañ a nekk nag jëf yu bari lool loolu dagan na kuy julli ku nekk julli ga rek moo la war a yitteel lu dul jëf joo war a def ci julli bokkul ci julli ga bul ko def waaye yenn yi nga xam ne nag yu ndaw la mën nga ko def te du yàq julli ñu jëlee ci loolu xadis boo xam ne abi qatadata moo ko soloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne gis naa yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jiite nit ñi ci julli umamatu bintu abi al ans umama doomi abil ans la abil ans moo doon borom këru zeynabu bintu nabi sallallahu alayhi wa sallam doomam jiñ doon wax umaamatu yonent sallallahu alayhi wa sallam daf koo fonkoon bëgg ko lool bu daan julli daan na ko teg ci ko mbaggam julli ba bu waree rukkoo teg ko ci suuf rukkoo siggi sujjóoti bu paree ci sujjóotam war a indiwaat beneen rakk jëlaat ko tegaat ko ci kaw ko loolu yonent daan na ko def saxaaba yi ne kon nag ñu tegtaloo ci ne fonk xale am yërmande ci moom aayul ba booy julli bu ñëwee saq la lool nga def ak moom lu mel noonu dara nekkul ci waaye nag sàmm wanteel ak xale ba na am ak laab bu fekkee lenn ci sabay yi mënu tàqale ko xale moo nekk ci xale ba rek yooya yàqul julli gi waaye bu fekkee nag sabay su fës la taq na ci mbubbam ak tubayam ak yaramam boobaa nag mëneesul noonu loolu borom xam-xam yi àtte woo ci kon yonent sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ci umaamatu jëf ju nu mel waaye bi julli xale jege la yenn dàqin yu métti yi wala sax far lor ko ca ndax mu ngi may jege maa ngi julli yonent jàngale na doomu aadama dafa war a am yërmande ci jàmm yàlla yëpp rawat na ci xale nag loolu daal liñ ci mën a déggee ak leneen ci beneen riwaaye mu ne waxin bi benn la daf koy tunkoom bu waree sujjóot wala ca rukoo ba mu teg ko bu ca noppee tegaat ci koom benn waxin bi la rek wa fi riwayatin fa ida sajada wadaaha wa ida qaama xamalaha loolu juróom yëpp soloo nañ ko lu dul Tirmidi yi ba tey ñu jëlee ci abi hurayrata mu jëlee ci yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent wax ne na ngeen rey ñaar yu ñuul yi ci seen julli ñaar yu ñuul yi ñuulay ban la xanaa lorekat ñaari lorekat mën nañ leen tuddee ñaar yu ñuul yi na ngeen leen rey ci seen biir julli ñaar yooyu mooy alxayata jaan wala aqraba ak giit jaan ak giit bu ngeen di julli nga gis ñu nar a yegg fi ci seen biir julleekaay rawatina nit ñi toog nañu bari nañu balaa muy dugg ci seen biir yow ma ko gis may nañ la jëlal loo ko rayee nga ray ko yëngu booba ngay def ngir ray ko yàqul dara ci julli ga defal boo paree ñëwal julli si waat
jaan ak alxayata jaan wal aqraba ak jiit
jaan loolu asxaabu sunnan solo nañ ko wal xaakim wa saxaxahu muy lu wér ba tey wasaqata wasaqata ba tey kum ñëwal itam tudduñ ko ci ñaar yooyu waaye ku ko rey yonent wax na ca wax joo xam ne lu war la yàqul julli kuy julli koo xam ne wasaqa ñëwal na ko te mooy unku kum ñëwal ci biir julli nga gis ko aayul nga jël loo ko reyee rey ko reyin ba nag yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nga dóor ko benn yoon mu dee mu ëpp ngëneelu nga dóor ñaari yoon mu doog a dee nga dóor ñaari yoon mu dee nga dóor ko ñetti yoon ñaar yaa gën kon kuy rey unku daal benn dóorin ba bu ca dee mooy la ëpp tiyaabo loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax kon aayul ci julli ku gis lu nu mel boo ko reyee ndax nekkul ko yàqu julli naka noonu luñ ci dul it mën nga ci dégg safara ngay tàkk boo ko bàyyee mun na tàkk ba yegg ci loo xam ne bu loola tàkkee mun na jur yàqu yu bari aayul nga jog dem fay safara soosa dellu si waat ci julli yàqul ko gis nga xale mu ngay def loo xam ne boo ko seetaanee mun na caa jëlee loraange moo xam day laal safara moo xam moo xam day bëgg a lekk lu lekkwul moo xam lu mën a doon aayul ci biir julli nga jog dem dox diggante xale ba ak loola dellu si waat ci sa julli waaye lu mu ci mën a doon nag boo bañee dëddu xibla moo gën fexeel ba sa jëmm lépp bu mu wëlbati ku jublu feneen fu dul xibla buy ca kanam nag doxal dem ca kanam defal booy dellu siwaat nag doxeel ndànk te bañ a daanu nag bañ a dal loo xam ne bu fekkee ne gestu rek la sakk bopp ngir gis la nga xam ne mu nga ci sa gannaaw nga mën a jàll te dara du la lor aayul def ko dara yàquwul ci julli bi boo fekkee sax ne imaam nga àndaloon mbooloo ma bari na rawee nañ la dara ci julli gi loo xam ne kuñ ko rawee ràkk booba raw na la yow dabaatalal beneen ràkk bàyyi booba ràkk lu mel ni ba nga koy def bi ngay laata dellu si imam rukkoo na ba si gi ca rukkoo raw na la wala rukkoo nga ak moom sax ci sujjóot nga dem defi ko sujjóot na ba si gi ci sujjóot ba tey sujjóot booba raw na la buñ noppee rek indiwaatal beneen ràkk yàqul ci julli dara ñu jëlee ba tey ci sayidatu aïcha soxna si yonent bi doomi abubakar radiallahu anha mu ne ñëw naa ci yonent sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ngi julli ci néeg bi julli naa faleem bi ma ñëwee fekk bunt bi tëju mu ngi julli ma bëgg a dugg ci néeg bi mu ñëw ba ci bunt bi ubbil ma buntam delluwaat ci julli te yi dafa ay sa wax na loolu xam ngeen yonent yi mosul am néegu boppam soxnaa mi ñoo amoon ne ku ca aaye rek mu dem ci néegam néeg say dafa ay sa nag la gënoon a fonk wala gënoon di féetewoo kon nag borom néeg bi bu soxlaa néegam te yaa ngi ci biir lu war jot na ubbil na ko bunt ba ndax néega bokkaale la ngeen déggee ci rek la ngeen cee déggee jafeel ba mu ëpp daal bokkul rawat na li tax julli naa fale la am maa nag ka lay xaar bu xamee ne yaa ngi julli mën laa xaar matalal da nga def loola dara nekkul ci bu xamulee ca loo nekk yitte woon a lool yitte ba àndal ak moom ci la yitte ba nag def jëf ju ndaw te dellu ci wax sa julli Sayda Aïcha nag ba muy wax wax ja mu ne bunt ba nag ci xibla ba la nekkee woon mooy tekki ne rek wut dëdduwul dem gannaaw waaye bunt ba ca kanamam la nekkoon dafa tekki ñaari jéego rek dem ci bunt bu ubbi ko dellu si waat ci julli bi te loolu asaabu sunan yépp solo nañ ko ba tey ñu jëlee ci sayyidatuna Aïcha mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad ra'aytuni wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa ana muttaji'atun baynahu wa bayna alqiblati gis nañ ma wala nekk naa di ku toogoon ku tëddoon ci wetu yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent doon julli fi ma tëdd nag maa ngi doxoon ci diggante yonent ak qiblaam maanaam maa ngi féete woon yonent qibla foofu laa tëdd yonent bu bëggee sujjóot yëngal ma xamal sa rijile ya bu bëggee sujjóot dana yëngal sama ñaari tànk ba ma yëg ne mu ngi bëgg a sujjóot ma randal tànk yi mu sujjóot ba pare ma tàllaat samay tànk ngeen déggee ci nag lépp njàngaleem yonent la sallallahu alayhi wa sallam ñu bare ngi julli ba buñ jàppee sax julleeguñu bu leen jigéen laalee wala ñu am lu leen laal ci jigéen rek nee nañ jàppale sax toj na waxuma nag julli ga yàqu na yeneen sa xamlee na ci ne lii yàqul julli la yàq julli ci jigéen laal la mbaa nga laal ko te yàqaale sax njàpp la jàngoon nañ ko téere ci téere lax dër yu mooy laal ba nga jublu bànneex te ba nga laalee nga am bànneex jubluwuloo bànneex amuloo bànneex li yàqul julli ga wala jubluwoon nga bànneex ba nga laalee bànneex amul julli ga yàqoon na ca waaye jubluwoo bànneex amuloo bànneex dara nekkul ca kon Aïcha ngi tëdd yeneen sa ngi julli barab ba xëy na yaatuwul ba mu mën a tëddi feneen wala mu jullee ci feneen wala yaatu na sax waaye daal foofa la toogoon yeneen mu jullee fa noonu la doon def ak Aïcha kii yonent bi nag mooy ñëpp wala ñëpp a yonent bi nag loolu it jar na cee xam nag am na ñoo xam ne xëy na bu loolu doxee seen digganteeg seen i soxna bu fekkee loolu dox na seen digganteeg seen i soxna xëy na la doon yonent du ñoom xëy na ku nekk gën a xam boppam julli gi daal yaa ngi ko yaa ngi ko taxawal ngir sa borom lépp lu lay delloo ci borom bi rek loola nga war a jëfee lu lay delloo ca leneen loo xam ne bànneexu bakkan rek la daw ko ku nekk gën a xam boppam nag ci àtte bi man nga caa déggee lu bari ha isa soxna si yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam xale la woon it nag ndax lam nekkoon xale moo tax yonent daan jëflee jëflanteeg moom ca noona wala boog buy jabaru mag itam loolu ci war xam ngeen Aïcha yonent baa ngi ko takk sallallahu alayhi wa sallam ci ba muy am juróom-benni at ci la ko takk ba mu amee juróom-ñeenti at la doog a sëy ci kër yonent kon ba muy sëy ci kër yonent juróom-ñeenti atam xale la ba tey kon Umaamatu mañ doon wax ne yonent daan na ko tënkoom Aïcha de ba tey xale la donte soxla la juróom-ñeenti at la sëy ak yonent bi yonent génn àddina bàyyi ko fi fekk mu ngi ci fukki atam ak juróom-ñett kon ba muy am fukki atam ak juróom-ñett la yonent génn àddina bàyyi ko fi mu dund juróom fukki at ak juróom-ñett doog a génn àddina ak lim jàng ci yonent bu ngeen toll yéen a ngi dégg jëlee ne caa jëlee ne caa Aïcha suñu déggee ci ne doom xale teewul a yittewoo bëgg xam-xam sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu taala anha ba tey ñu jëlee ci abi hurayrata radiallahu anhu mu jëlee ci yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent wax ne julli ku la soxlaal yow miy julli buy góor subhanallahi mooy waxinam buy jigéen a tasfiqu mooy waxam góor buy julli lum munul bañ a waxee bañ xam ne mu ngay julli subhanallah buy jigéen bu mu yëkkati baatam subhanallah waaye na def lu mel nii dóor ci poojam ñu dégg ne am na lu xew ka muy waxal ca loola mën naa xam ne kii day julli kon góor na wax subhanallah jigéen na def lu mel noonu loolu nag ci anam yu bari waaye ba ca raw mooy ka lay jiite ci julli bu nekkee ne juum na yow mii maamoom booy góor waxal subhanallah moom dana xam ne juum te xew na ci jullim ga buy jigéen du wax subhanallah yi day def lu mel nii rek ka doon jiite xam ne am na lu xew la ko jaaxal nag ca la xew xamul lan la may nañ ko ci sariatu mu geestu geestu maanaam jëmale jëmale yëgam ca ñamu jiite ñu leen lu xew su fekkee nee nañ ko subhanallah xamul lu xew mu ne lu xew ñu ne ko da ngaa yokk wala da ngaa wàññi wala julli gi pare na wala dara nekk buy góor ga la mu tontu ko ci buy jigéen ji mu tontu ko ci dara nekk loolu juróomi yëpp solo nañ jëlee nañ ba tey ci Sahl ibn Saad radiyallahu anhu mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xam ne dara gaar na ko ci julli na sabbal bu fekkee sabbal na rek loola mën naa yëgloo yittee ka ko doon yittewoon mu xam ne kenn ci julli waaye nag jigéen ñi ñoom duñ tàbbal dañuy def tasbix man naabahu shay'un fi salaatihi fal yusabbih fa innahu ida sabaha ul dufita ilayhi wa innama tasfiqu li nisaai rawahu salasa ba tey ñu jëlee ci ibnu omar radiallahu anhuma bu ñu waxee ibnu omara tudd nañ kii doom ji tudd nañ kii baay ji kon ibnu omar mooy kan abdullahi ibnu omar abdullahi mooy turam waaye omar mooy baayam ñu mujj di ko dàkkantalee ci baay ji ba doomu baay ji doomu omar mujj gën a nekk sax ci turam buñ ko xamee waaye abdullahi la tudd kon nag tudd nañ ko tudd nañ baay ji moo tax fu ngeen fekkee ñu tuddandoo am ñaari duñu wax radiallahu anhu rek ñaanal kenn ci bàyyi baay ja wala ñaanal baay ji bàyyi doom ji dañu leen di boole ne radiyallahu anhuma ñoom ñaar yépp yal na yàlla may leen ngërmandem mu ne wax naa bilaal ne ko naka la yonent sallallahu alayhi wa sallam daan dellooyee nuyoo koo xam ne mu ngi koy nuyu te fekk moom mu ngi ci julli mu ne daf daan junj ci loxoom rek ku nuyu yonent fekk yonent ngi julli du la wax assalaamu du la wax waaleykum salaam dafay def loxoom defin boo xam ne di nga xam ne kii kat ci julli la nekk ndax nit mën naa taxaw wala mu toog nga ñëw nuyu xamuloo ci lu mu nekk taaya mën naa yàgg taxawaay mën naa yàgg duñ xam ci loo nekk waaye boo defee sa loxool mandarga bu wane ne yaa ngi julli que la doon yittewoo dana xam ne yow mii ci julli nga nekk bilaal lam tontu mooy yonent daf daan junj ci loxoom rek sallallahu alayhi wa sallam te loolu xadis la boo xam ne Tirmisi yi soloo na ko ak Abu Dawud moom nag mu dolli ci ne dafa doon tàllal loxoom def ko loxo ba mu féetewoo kaw maanaam nii day def nii loxo bi kon junji baaraam mën na nekk waaye nee na nii la daan def fi nga xam ne daan tàllal ñu xam ne mu ngi julli ba tey ñu jëlee ci jaabir radiyallahu anhu mu ne nekkoon nañ ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yónni ma ci benn yitteem benn soxlaam mu yónni ma ba ma demee ba ñëw mu fekk ko mu ngi julli ma nuyu ko waaye delloowul ma tontu ñu déggee ci ne kon kuy julli bu la nit nuyoo bul te delloo tontu ndax julli gi ñu taxawal rek la nag war a julli julli farata wala gépp julli la gu mën a doon xataa julli ci yonent bi la sax am na ñuy jog di jéem a wax ne ñiy wirde lu tax buñ leen nuyoo duñ fay bay wax ne lañ ñuy def loola biddaa la bari na lool lu siiw ci jamono bi waaye yéen ku ci yittewoo di julli jullik farata la mbaa jullik naafale la wala da ngaa téye sa kurus di wir da dog boo xam ne laajul wax que la nuyu bu fekkee daf laa nuyu wane ne nuyoo ba de du farata waaye delloo nuyoo farata la tax mu ne nuyu na la fayuloo ko mu bëgg laa wax ne la ngay def bidaa la tontu baa ngi yonente sallallahu alayhi wasallam wax na ne yaa ngi julli sëb julli nga farata la delloo na yow buy farata itam julli nga farata la bu jógee ci farata dem ci farata da loolu farata bi nga nekk kon atte bangoobu ku ciy wirde ku la nuyu bu dul wirde woo xam ne nag wax yàqul ko delloo na yow buy boo xam ne nag wax gënu ca doy loolu wirde wa bul fay nuyoo ko dara nekku ca ku la ca bëgg a indil wax ju bari xadis baa ngi yonente ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam ci beneen riwaaya mu teg ci wax ne ba yonent jullee ba pare sallallahu alayhi wa sallam daf koo xamal ne ko da nga maa fekkoon kat may julli julli gi moo taxoon mënuma loo woon a delloo sa nuyoo muy benn waxin rek muy xaddis boo xam ne Buxaari yi soloo na ko moom waxuñ ne dafa junj ci loxoom dafa noppi rek kon ñu dégg ci ne junj sa loxo boo ko defee baax na waaye boo junjul sa loxo itam wéy ci sa julli gi itam baax na ndax yeneen si def na ñaari yëpp junj na ci loxoom bañ naa junj ci loxoom it wéyal jullim ba mu paree mu wax ne ci li laa nekkoon muy xaddis boo xam ne bu wér la buxaari yi sopp soloo ko muslim abu daawud ñu jëlee ba tey ci aliyin radiallahu anhu ali yi wax ne nekkoon naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn jamono maanaam man maa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma ñëwee ma yëglu pour bëgg a dugg ci néegam ma fekk ko mu ngi julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nax naxa mu xaqar ni ko lu mel noonu ba tey itam kuy julli wala kuy wirda te ka bëgg a ñëw ci yow yëgul ne yaa ngay wirda te xam ne ne yaa ngi ci biir aayul baatu subhanallahi ba waxoon nañ ko joxoñ loxo bu lay gis la wala gisu la nga ne rek dara nekkul ci ndax Ali ibn Abi Talib wax na ne loolu la yonent bi defoon sallallahu alayhi wa sallam ba yonent jullee ba pare nag la dogam la ma dogam may ndigal ne naa yegsi ci julli ci wirde yëpp gis ngeen ku bari ñu bari bu ñuy wirde bu amee lu leen soxlaal wala ñoom ñoo soxlaal da ngay dégg lu mel noonu ci lu mënul ñàkk baax na benn yoon ñaari yoon rek waaye nag lu mu mën a doon rek sa yitte dem ci ku la waxee koo bëgg a waxee yépp ba wir dafa jeex du loolu nag rawat na ci jigéen ñi bari na ci lool xaarte baa ngi lu tax mu bari ci jigéen ñi nag du yeb leen xëy na dañoo bari lu ñu soxla woo mbirum kër gaag mbirum njaboot gaag jamono bu nekk ñu war di wax ak a yëngu xëy na loolu la waaye.
Saalum li fa nekk lii ñu génnee nii de.
kon nag Saalum li fa nekk.
Omar nee na xadis kon waa Saalum ak ci.
suma xare yi sama militaire yi maa ngi leen daan waajalee ci sama julli.
Atteeb su sama biir julli laay xalaat lu jëm ca loola kon xalaat booba dafa delluwaat ci yàlla. buñ koy julli gi day delluwaat nekkal yàlla ndax jëf dañ cee xalaat ci yàlla la jëm.
jàng naa.
kon ku mu doon ci yéen lépp loo mën a nekk ci mbirum àddina aayul waaye nag su jóotul ci.
ndax ci àddina ngay fàggoo mbirum àddina waaye ci ngay fàggoo itam ngërmande yàlla bu lay may àllaxira bu baax
baraba gi yegg.
boo demee ba nekk foofa sa lépp jaamu yàlla la lu muy teg su jóotul ci amul. wala boobu rawaahuma al buxaari yu
benn te xadis la boo xam ne Loolu- yëpp solo nañu ko.
bunt la bu doon wax ci wàllu su jóotal borom bi ngir sant ak la mu wax ne ay jëf yu ndaw la yu mën a gaas ci jur bi te yàqul Ibni julli Abdillahi radiyallahu anhu mu ne.
ñu ñëw ci beneen bunt boo xam ne mooy buntab juróom ñetteel xataab boo xam ne dafay wax ci ngëneel yi am ci jàkka yi ak dox jëm ci jàkka yi ngëneel yi am ci néegu yàlla yi ak dox jëm ca néegu yàlla wàcc yi na lan mooy ngëneel yi ci am nit ñi ñëpp sujjoot ànd ak moom kon buntab julli la ba tey ndax jàkka ak la ca aju lépp ci julli la jëm muy moo jàngaat tax ñu ngi ci kitaabu salaat.
sujjoot lépp ci la jëm waaye nag ma bëgg ñu yeewaat ci tey dars te bi yéen nit ñi te tegal suñuy gan ñun kat digal nañu lii ku ci am laaj boo war a laaj lu jëm ci liñ jàng wala lu jiitu woon wala leneen lu ko jege def nga lu baax ñu tontu la ca képp kum xam-xam fa mu toll lay sunna def nga ko xam leen ne daal jàmm bi jamono bu nekk war naa dellu ci boromam dellu yëngal jëmam jëmale ko ci la yàlla bëgg la yàlla gërëm kon sujjoot na ca ba xolam mën a dellu ci yàlla jamono bu nekk.
xam leen ne daal ku ndax nekk yëngal ku cër nekk yi nga mu bàyyi jëm ndax ci yàlla ku ak ko def daal yëngal def cër yi nga mu loo jëm ci xam ne àddina sunna kenn la, mënu ko ku ko def xaajal bàkkaar topp la.
waaye la muy def ci xol ba rek te lañuy xamee ndax yëngu ba ci yàlla la jëm wala ci àddina la jëm ku yàgg a jëfee nag li yonent santaane sallallahu alayhi wa sallam ci xeetu jëf radiyallahu anhuma mu ne bu yàggee itam xol ba dana am ak yàlla leer farataalul ci ñun dana am ak bëgg yàlla jublu yàlla ba nga xam ne alxuraan lu dul daf ñoo sopp sa jëf lépp day dal di gërëm loo suñu yàlla soobee nañ def suñu soobee nañ ànd ak keneen ka nga xam ne tuddeewul jëf ji yàlla itam yàllaa ko moom de waaye yàlla gërëmul ndax jëf yi li muy bari bari kat lépp yàllaa ko moom waaye la ci yàlla gërëm mooy lañ tuddee yàlla moo tax yonent jàngaloon ni ñu ne innamal amalu binniyaat wa innama li kulli imri'in ma nawa solo na ko jëlee lañ ko jëf yi yéene yee la wuute wante kenn ku nekk loo yéene ci sa jëf rek loolu nga ci am yéneen ko sallallahu alayhi wa kon nag sallam njàngaleem yonent nga daan na wax bu sujjootaan si jóot njàngu ngeen njuumte alxuraan bu am ci julli ci guddi si jóot ngeen jàng alxuraan yii bat sujjóot ngir sant yàlla waj ci li ak fi xalaka fii ñu mujj jàng yenn jëf ci xeetu jëf yi nga xam ne jëf julli yàqul julli ci julli ga la bokk
nee na baat yi mooy nañu fexe sunu sama lépp kanam ñu delloo ko ci li nga yàlla xam ne ci ni dëppoog ñu yeneen ci jàngalee sallallahu alayhi wa sallam ñu war a dellooyee mbir yi ay ñu jëm noppam ak nekkal ay borom bi bëggam ci kàttanam ak doole yenn yàlla may tawfiix ci sunu waxin sunu jëfin lépp dëppoo ak la gërëmloo yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam yenn yàlla may ngërmandeen ngërmandeeg yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam Alxuraan ngërmandeen sëriñ si ngërmandeen way jur yi sant yàlla ci daraja yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam sant rek dafay defee alhamdulillahi rabbil alamin balaa ñuy yeewal dàrt bi nag lee lenn ci li nga ñu xam tatagal fi gan ñi bu fii nga xam ne Serigne Ibrahima Aydara ngi tudd Kutub ñu Sunna ngi nii yegg si léegi jàngale na ko ci mbirum surtout Cheikhana Ahmada Tidiane la radiyallahu anhu miin ngeen ko ci jotaay bi
kuy jàng alxuraan muy ku baax ba yegg ci ci barabu baax na wala ci lan bu dégg kuy ndax jàng Cheikh Ahmad alxuraan.
Tidiane la waaw nee loolu koy baaxal na ci nit moom waaye nag mu ne am na sët yoo xam ne itam nag yëngu wuñu jëm Bal ci lu ñu mën a waxee nit ki ku baax la moom nag mu nga yëngu ci lu baax jogaat waxaat allahu akbar kon baax na ndax kon boo koy sujjoot fa mu soxee ko waaye jëfam itam tegtale na ne fa mu soxee ko melokaan yu rafet lan ya kay mu wax ko nag jikkoo lan mu la koy jëfee liñ jàng léegi Jërëjëf Ibrahima, mu ngi lay tatagal. Eh, ba tey sunu mbokk baax na Souleymane Diop mu ne nii kilifa la bu baax def nga la dëppoog la ñuy yàgg yore ay liggéey yu koy daraja ci réew mi.
amul sël bët sunu gàmm gi ñëwoon na ànd ak yeneen kilifa waaye xatoon na ba mënuloon a yëpp ci ñun ak xaati ñu mujj génnee seen toog seen basan ci seen oto rek toog ci ëtt ba ñu jëlee ci Abdourazaq toog ci ba seen xol sedd ñu delluwaat yi sax mooy ba tey lay doog a dellu si nii gisee ak ñun kon ñoo ngi koy yëgal ne ko bëggoon nañ ci ñëw ba jóotale ak yenn yàlla gërëmoon ñëw booba muy ñëw ngir yàlla ci yàlla ñu ko génnee rek ci saar wu kon nekk
Souleymane Diop ñu ngi lay tatagal yi itam du leen ci neex di lool ahlan wa sahlan daal bi bind nañ ko kon yow ak ñi nga àndaloon ñëpp.
daal bi rek fekk ko ci yenn yàlla may ñu ngërmandeem lañu amee ci bis ba ci yiw yëpp yenn ñu yàlla boole yiw yëpp bokk ñun na ak ci yéen ñëpp yeneenu ñu ngi leen di tatagal tuddootal alxuraan Serigne Ibrahima ay Aydara hadis yoo xam ne bi ci njëkk Abu Hurayra te moo ko solo jëli ci yonent Loolu maa ngi lay nuyu, ñu ngi lay yonent wax ne doomu aadama bu jàngee alxuraan te yegg ci barabu sujjóot bu sujjóotee seytaane dafay daw salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu wax ne doomu aadama moom de am na Yàlla.
ndax yàlla digal na ko mu def moom seytaane yàlla digal ko yal na yàlla yal nañu yàlla nangu suñu nuyoo ak suñu ziyaara ñu am ñu ko ci jëf ñu fi tax a dajee yal nañu yàlla boole ci ñi ñi ñi am la ca gëm ñi ñi yàlla wax ne suñu déggee wax dañuy seet la ci gën a rafet ñu topp yal nañu yàlla boole ci ñoom ñi jotaay bi yal nay jotaayu Seexuna Tijaani radiyallahu taala anhu yal nay jotaayu sallallahu alayhi wa sallam te insha allahu moom la it xam nañ ko bu wér man nag maa waxoon sëriñ bi ne ko dinaa fi ñëw ñu ngi jéggulu nag ci yéex gi mooy atte bi sunna la waaye dafa am Fulla benn soo xam ne programme boo ko boo xam ne defee dama def nga lu yaakaaroon ne du dem ba baax lool.
heure boo nag bi sunna boo ko defulee bàkkaar suñ bokk couleur yi nekk ba ci géejawaay mel ni jàkka ju nekk ci kaw ñoo ma santoon waxtaan gannaaw tàkkusaan foofa laa demoon doon leen waxtaanal ci lu aju ci tarixa bi ma foogoon ne balaa six heures dina fekk mu pare waaye yàlla dogal sept heures moyen lañ pare loolu moo tax sëñ bi ñu ngi jéggalu ci yéex gi ñëw loolu mooy sabab lan mooy sàppe ya nag
miin naa sàppe yi fi ñuy sujjatalee alxuraan walillahi alhamdu li ëpp ci miinu borom cofeel xam-xamu fiq ak yi miinu mbokk
dañoo wax cofeel bi mooy lan nekk jàng cofeelu alxuraan ba buumu lislaam bi ñu takkee na nga sàmm wàcce cofeelu sàppe yooyu.
tarixa bi nga xam ne ñoo te ko mooy bokk nee na na nga laab
ak it nag kii nga xam ne mooy ki nga xam ne sa mooy kanam luy tax ba kenn du la mën a romb jaar Cheikh ci Ibrahima diggante Sall
sa kanam maanaam yore yorin mu rafet ay taalibeem dana nga sutura di jàngale njàngaleen mu rafet loolu sàppe yi la bokk lii mu nekk ci la mag ñi newoon lii mu nekk ci la sallallahu alayhi wa sallam newoon ci la mag ñu baax ñëpp newoon ci lañ leen xamoon barki démb nag ma ñëwoon fi am lu ma ko Waaye wax nag- loo xam ne gisul ci xadiis yi yàlla ci mbaaxam mbaaxam ñun de duñ dara day tekkale ne kuy sujjoot waaye lii may wax da damay ñaan yàlla bu ci li ko lii borom xam-xam yi ñoo li ko laxtare yi wax wax yàlla bu mu ci am yoon ndax bu ñu nee borom xam-xam sumaat bu yàlla bu mu ci am yoon yaa jàngale bi yeneen sallallahu alayhi wa sallam euh, royatu yàlla bu mu ci am yoon ak làpp muy ndéggtal ak ku ngittal jàng alxuraan ku nekk yàlla nañu yàlla musal ci ñaar yooyu te lii may bëgg a nekk yàlla bu mu ci am yoon saar la wala yàlla nay aaya la.
jëmmi yàlla ji yoo kese tànn di ko jàngale yàlla nañ ko déggee ngir yàllaay kese yàlla nañ ko jàppee it ngir yàllaay kese te kenn ku nekk yàlla na ko jàppee muy sa bopp muy loo xam ne guddik samedi la amoon bërkat di dimanche fekkoon ma Thiès mu fekkoon ma nag ci sama kër ga ca Thiès ma fekkoon it ma ànd ak ay gan waa Tiwaawan nag waa Dakar ñu bari ma àndoon ak ñoom ñu demoon defali ma fa yendu yendu ba far yàlla def ñu def ko sax fanaan fa ñaari guddi yëpp di waxtaan rek ci wàllu lislaam ak tarixa bi ah ci biir loolu nag am lu ma yàlla woon ci seen jotaay bii guddik samedi bërkët di dimanche ca yoor yoor bu ma juumut ma woo sëriñ bi téléphone ne ko man kat damaa am mbégte ndax am na lu ma yàlla xamal woon ma ko moom laa la bëgg a nettali ma nettali ko ko ba mu yegg mu ne ma su ma la gisee ne incha allah loola dana danañ ko def niñ ko waxee ma ne ko incha allah maa ngi Thiès dimanche la ñuy ñibbisi altine la ñuy ñibbisi waaye su ma jógee Thiès rek sa kër laay jaar si balaa may jaar sama kër yàlla dimbale ma it ma doxalee ko noona te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne soo gëntee na muy gënt gu rafet na nga ko nettali sa xarit borom xol bu set bu laab soo gëntee safaan mu ne na nga noppi te fa nga ko gëntee na nga tufli ci sa wàllu càmmoñ ñetti yoon ne yàlla yàlla na nga ma musal ci ayu lii ma gis lii nag ci gëntu goo xam ne gëntu gu rafet la ci gàttal ndax léegi tamit wax waxtu yi jot am na yu bari yoo xam ne waxoon naa ko ne incha allah bu ko yàlla dogalee moom dana leen ci waxtaanal ndax matee na ko te xam-xam bi it mu ngi fi ci moom incha allahu taala loola nag mooy lii yàlla dafa dogal ma gis benn jotaay jotaay ba xaw a niru bii lool waaye du fii nag ma gis ko moom sëriñ bi mu ngi taxaw yor bindukaay di bind ci benn tableau di jàngal ay nit lam bind ca tableau ba nag benn baat rek la mooy la yastaxlifannahum la yastaxlifannahum la la yastaxlifannahum booba la bind ci tableau bi ne ci laa bëgg ñu waxtaan di ko toj lii may wax nag na kenn ku nekk jàpp ne yow la xam naa turi taalibe ba waaye du ma tudd turam waaye kenn ku nekk ci yéen na jàpp ne man la ndax lan inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan walam yaku min almushrikina lu tax shakiran li an umi ijtabaahu wa hadaahu ila siraatin mustaqim yàlla ne yonenti yàlla ibrahima ala nabina abdali salaatu wasalaam kaana ummatan nekkoon na di nation demoon na ba jëmmam ji jëmmi nation la lu tax lu ko ko mayoon xaanitan dafa taxawoon kemm lillaay ñeel boromam xanifan di way wommatu nag te wa ma kaana mos ta nekk minal mushrikiina di bokk ci ñuy bokkaal yàlla shaakiran ku daan sant la li anoo mi ñeel xéewal yi ko yàlla defal yàlla ne nag ni ci kaw loolu ijtabaahu laa ko tànnee wa hadaahu ma gindi ko jubal ko ila siraatil mustaqim jëmee ko ci yoon wu jub bi ñëpp soxla kon kenn ku nekk ci yéen na jàpp ne man la waaye nii ma xamee sëriñ bi nii ma leen tuddee turi sëriñ bi noonu laa xamee turi taalibe bi noonu laa ko gisee it kon kenn ku nekk ci yéen na jàpp ne moom ma bi sëriñ bi bindee baat boobu la yastaxlifannahum di ko toj di ko jàngale mu am kenn ci taalibe yooyu ku ne sëriñ bi man baat bii bëgguma xam li ci kaw rek li ci biir laa bëgg a xam am na lu nekk ci biir baat bi loolu laa bëgg a xam li sëriñ bi di jàngale ci tableau bi yëpp am na luñ génnee ci gannaaw tableau bi di ko wan mbokk taalibe boobu man sama bët daw jëm ci loola ñu delloowaat ko waaye yàqul dara ci li ñuy jàngale ndax inna allaha ala kulli shay'in qadir ku xool bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di rañaan di dem asamaan te teg benn malaaka boo xam ne nee na li ci commencé ci ci digg bi ba ci suuf lépp safara la li commencé ci ci digg bi ba ci kaw yépp glace la safara si mën dafay glace glace gi mënta soyal safara si loolu ku ko gis xam ne yàlla lu nekk la mën ku ko dégg gis xam ne lu yàlla lu nekk la mën bam taseeg sallallahu alayhi wasallam jëm ci suuf yonent bi ne ko man li ma jaaxal malaaka yépp ngi jëm ci kaw yow rek yaa jëm ci suuf lu tax mu ne ko ki la woo ci asamaani juróom-ñaareel moo ma woo ci asamaan ci suufi juróom-ñaareel te kenn ki la rek wa fi samaay ilahun wa fil ardi ilahun yàlla mi nekk ca kaw moo nekk ci suuf mbokku taalibe boobu nag biñ génn bi mu ne li li biir baat bi ëmb laa bëgg a xam mu am luñ ko génneel ci gannaaw tableau bi wan ko ko ne ko lii lii moo nekk ci biir baat bi mu koy xool may ma dawal sama bët jëm ci mu delloowaat ko mu ne ah man de génnee nañ ko waaye xaw ma lan la ma ne ko may da séen naa ko rek waaye xaw ma lan la ñu delloowaat ci biir jotaay bi fiñ toog ñi toog ci suuf sëriñ bi rek moo taxaw di jàngale mbokk taalibe boobu am keneen ku dendeeg moom waaye xaw ma ko moo ma ne waxal sëriñ boobu nga ne ko waxal cheikh bi nga ne ko na jël juróom-ñaar ci kilo suukar jox la ko nga yóbbu ko ca jàkka ja benn paquet bu nekk nga jàng ci li ila soxraysin jox ko ja ñiy ñëw ca jàkka ja te nga ne ko mu sax ci njàngale moomu muy def na ci sax na ci sax boobu baamu na ko ñetti yoon na ci sax na sax ci njàngale moomu ma ci woo ko téléphone bi bër setee rek ma woo ko téléphone nett di ko ko ci biir téléphone ne ko nag dinaa jubali sa kër ne ko taalibe boobu nag ku la sopp la ku la bëgg la ñëpp la bëgg waaye moom ku la sopp la ku la bëgg la ziaral ma ko balaa may ñëw yow ci sa bopp it nag maa ngi lay ziar di la ndokkeel yàlla dogal loolu di di di samedi dimanche balaa may ñëw ci altine ji dimanche ci guddi ma gisati alaaji Aliou Ka yaakaar naa ñi miin kër Baay Ñas xam nañ ko doomu maam Maas Ka la woon maam Maas Ka bu mag dëkk ca Medina Baye Maas alaaji Aliou moomu may na sama papa soxna bi mu gaañoo it soxnaam su ndaw doom yi biñ dajee sama papa lañ ko jox moo koy denc ba fii may wax ak yéen nii ma leen miine noonu laa ko miine woon ndax def naa ko juróom-ñaari at falaa doon jànge moom alaaji Aliou Ka taalibe cheikh al islam la woon ndax daan ñëw Kaolack di ko gane si daan dem Mauritanie ma gis benn tool boo xam ne yaatuwaay bi xaw ma nu mu toll yëpp nag ñu ngi ko jëmbat ay orange par rangée rangée bu nekk nag bàyyi nañ ci benn mbedd noonu lañ jëmbatee tool bi ba mu fees orange bu ci nekk nag garab bu ci nekk mu ngi meññ ba diis ma ñëw ci biir tool bi ñu ne ma xam nga tool bi bu ko moom ma ne leen déedéet ñu ne ma alaaji Aliou ko moo ko moom doxal tuuti di nga fekk këram mu ngi ci biir tool ma dem ba ci biir kër ma dem ba tuuti rek ma seen benn étage benn jigéen rek moo fa nekk xammee xammeewu ma ko nag ci soxnaam yi te soxnaam yëpp xamoon naa leen ñu ne ma kële mooy soxna alaaji Aliou kooku nag moo wax ak man ne ma sëriñ bi mu ngi ci biir xaar ko léegi mu génn fi ma toog muy waxtaan ak man ne ma waaw xam nga tool bi ku ko moom ma ne ko déedéet mu ne ma tool bi alaaji Aliou moo ko moom waaye genn wàll gi yëpp nag xaaj na ko ci digg bi jox ko benn muxaddamu bàyyi benn taalibe bàyyi la ko jox kon man ci sama rafet njot ak sama xel mu jàpp ma jàpp ne loola it yéen lañ ko cërale rek mu toftal ca loola su ko defee nag la ma waxoon sëriñ bi mooy baat bi man na fexe ba ngeen xam ko la yastaxlifannahum boobu am na lu ma ci jotoon waxtaanal ba ma ne ko nang ci def waxtaan spécial pour taalibe yi xam ko te it taalibe lañ lii ngeen fi taataan si bu leen ci tayal mukk jàpp leen ko dëgg-dëgg jàpp yéen a ngi ci jiyaadul akbar yéen a ngi ci yëli yàlla bëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku jóg di sàkku ci xam-xam malaaka yi dañuy lal seeni mbagg nga di ci jaar Abdou Diouf buy génn tapis rouge lañ koy lañ koy lal kon yéen jàpp leen ni am ngeen tapis rouge biir ndax malaaka malaayika yi seen laaf yooyu ñoo ëpp doole tapis rouge yi ngeen jàppit ne yonent bi nee na képp ku génn di uti xam-xam malaaka yi dañ lay jéggalul ba ngay dem ba ba ngay dellu loolu rek jaroon na ngeen ñëw rawati nag ñëw bi ngeen di ñëw di taataan xam-xam di fekk ci seen sëriñ muy ñaani ñaari ngeneel ci biir benn xeer jam ñaari picc ñëw ut ci xam-xam fekkaale fi sa sëriñ fekkaale fi sa cheikhu murabbi kooku biir ay ngeneel yi ngeneel yu du jeex la yéen a ma ko gën a xam ndax lan ndax la yàlla wax ne ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا كعبة دمير لبدا التي ينتبه صلى الله عليه وسلم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما yàlla ne am na bàkkaar yooyu am na ngëneel yoo kenn du ko amee ludul waaxu gàddu sa tànk seeti nutu yàlla góor ci kanamam am na bàkkaar yoo xam ne bu ko nit defee astaghfirullah du ko dindi saraxe du ko dindi aj màkk du ko dindi woor du ko dindi la ko mën a dindi mooy nga kondom kondom yi ak say tànk yaa xam da nga dox wala oto nga war wala sareet nga dugg ñëw ba ci kanamu nit yàlla sukk ci moom ne ko jéggalul ma yàlla mu jéggalul yàlla nga jéggalu yàlla yàlla jéggal loolu la yàlla wax kat te la yónnante bi amoon ba tey ñu ngi koy donnante yàlla wax ne walaw annahum doonte ñoom ñooñu is zalamu dañoo tooñoon anfusahum seen bopp jaawu ka ñu jógee seen i kër ñëw ba ci yónnante bi sallallahu alayhi wasallam fastaghfarullah ñu jéggulu seen borom ci kanamu yonent bi wastaghfara lahum rasulu yonent bi jéggalul leen boromam la wajadu bu boobaa danañ fekk allahu bur yàlla tawwaaban mu jéggal leen rahiman boole ci yërëm leen kon am ngeen ñaari picc ci benn bal yéen a ngi ut si xam-xam fekkaale fi seen sëriñ tëbb ci moom ay leer tëbb ci moom ay maratib jàng seen leçon jàng seen darsu am seen xam-xam ñibbi ku taxaw ak yéen ci mbedd mi ngeen laaj leen ngeen tontu ko lii doy na sëkk àddina doy na sëkk àllaaxira na ngeen gëm ne Seexu Tijaan ngeen di fekk si ci kër gi na ngeen gëm ne Seexal Islam ngeen di fekk si ci kër gi na ngeen gëm ne sallallahu alayhi wa sallam ngeen di fekk si ci kër gi na ngeen gëm ne it fii péyub yàlla la ndax nit ki ci boppam jëmmi boppam ji rek bu sellalee boppam réglé boppam rek péyu yàlla la kon nag rawati place boo xam ne yaakaaru na ceeb jiinu na lañ fa soxla woon yëpp ñu ngi ko fay gis kon cheikh bi ñu ngi lay ndokkeel ci loolu ñu ngi ñaan yàlla ci li la yàlla cërale yàlla ñu ci yàlla cërale te la la yàlla cërale bu ñu ci cëralee yàlla bu mu fayam yàlla ñu ko yokkal di ñu ko yokkal di ñu ko yokkal ba mu dajeeg moom ëllëg ñi ñu bokkee jotaay bi mu boolee ñu koog cheikh al islam boolee ñu koog suñuy sëriñ boolee ñu koog cheikh tidiane boolee ñu koog sallallahu alayhi wa sallam dañ ànd ak sallallahu alayhi wa sallam teew ci kanamu borom bi dem nañu àjjanaangoo dugg leen bilaa xisaabin wala iqaabin bañ janoog jëmmam ju tedd ja moom yàlla jëmm ja nga xam ne moo dàq àjjana ak la ca biiram yal nañu ko yàlla defal wasalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullah waxoon naa leen ne ku baax la doomi ku baax la waaye nag xam-xamam ak melokaanam rek bu askanuwuloon foofa rek bokk na suñu baax ya bi ma waxee kon xam ngeen ne mate na sëtub ka mu doon sët ca moom alhamdulilah ñu ngi lay tatagal te ñu ngi bég ci li nga nettali yenente sallallahu alayhi wa sallam bi alquran wàccee ba jeex mu génnee këram nga dugg ci jàkkaam ja kër ga jàkka ja benn nekkuwaay la woon rek nag fekk sahaaba yee ñi nga toog mu ne leen lam yabqa min al mubashirati illa ruya saliha yaraha al mumin aw turalahu dara desatul ci yuy bégle yi ci wax yu bi daan wàcc jóge ci yàlla jaar ci jibril ñëw ci yenente sallallahu alayhi wa sallam te jógee jëm nekku fa ndax yàlla lu mu bëgg a wàccee ci yonentam jógeeg jëm ne ko fa waaye nag wax wax la mu ne dara desatu ca lu dul nag gént gu baax gu ab jaamu yàlla bu yiw gis wala ñu gisal ko ko nam ko tuddee sax mu basiraat yuy bégle yi noonu la tuddee woon gént kon nag gént ci yi bégle la gént na rafet na bégal nañu yal nañ doon ña yeyoo gént gu rafet boobu ndax dégg ngeen la mbakkat